أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala di ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw loolu mbokk yi ba tey ñu ngi ci qissatu ayub alayhi salaam tey mooy ñaareelu dars ci histoire yonent yàlla ayub tey tomb bu ñuy jël mooy innaha nicmatu rida mooy xéewal bi gën a rëy ci xéewal yi mooy xéewal bi nga xam ne yàlla dafa teg ab jaamam dogalam jaam bi nangu ko loolu mooy xéewal yi gën a rëy ci xéewal yi nit nangu ndogalul yàlla bu ngeen xoolee sunu diine lislaam ponki ngëm yi da ko séddale juróom-benn waaye ci biir ponk ngëm yi danga fay fekk gëm dogal su neexee su naqaree loolu moo tax jullit xéewal gi gën a rëy gi ko yàlla defal ci kaw suuf mooy mu nangu ndogal yàlla looloo tax sunu tomb tey mooy laqat imtalaa qalbu ayub ridan bi qadaa illah xolu ayuba alayhi salaam yàlla subhanahu wa taala dakaa feesal ba mu rembet ci nangu ndogalal yàlla xam ngeen ne am jàpp ab jaam bu nangoo ndogal yàlla rek mbiram yëpp baax na yonente alayhi salaatu wasalaam da doon wax ak omar ibnul xataab benn bis mu ne Omar amuminuuna antum ndax yéen gëm ngeen yàlla Omar ne ko naam gëm nañ yàlla yonent yonent bi ne Omar fa ma alaamati imaanikum yéen luy wane ne gëm ngeen Omar ne narda bil qadar su yàlla dogalee dañuy nangu wa nashkuru fi raxa bu neexee dañuy sant yàlla wa nasbiru alal bala bu nu yàlla nattoo ñu muñ ñett soo ko nangoo rek yow gëm nga yàlla boo ci bañee benn gëmoo yàlla boo bañee ñett yëpp gëmoo yàlla foog nga nangu ñett yëpp asukuru fi raxa sant bu neexee asabru fil bala nga muñ nattu yi waaye arrida bil qada lu yàlla dogal sa kaw nga nangu ayuba nag sunu borom subhanahu wa taala dogal na ci moom la mu dogal moom mu nangu ko walam yatasaxat lahza moom ayub alayhi salaam musta mer musta wax musta ñaxtu benn seconde lahza waahid lahza waahid benn seconde musu ko ñaxtu musul onk kaana yastahi an yasala rabbahu ashifa xam ngeen lu doon mbiru ayub mooy rusa ñaan boroomam wér nee na moom rus na tàllal boroomam daan ko yàlla dama feebar waaw yàlla naa wér rus na loolu rus na ko xatta kaana yudrabu bihi lmathal loolu moo tax ñu daan joxe ayuba misaal fi sobri wa rida ci muñ ak nangu ndogal yàlla fa yaquulu fa yuqaalu sabru ayub léeg-léeg nga dégg ñuy joxoñ kenn ndeysaan ñu ne waa ji di dafa muñ muñu ayub sabru ayub lenn saa yi ñuy joxoñ nit gaa yi yéen seen montre yi rafet na de hmm? tey indi naa ñaar de encore ñett laa indi woon waaye dafa am ko gañe woon keroog nee nañ tey indi naa yeneen ñaar yu gën a rafet yi rafet na de am moom teg ko nii ku trouvé sama question yi rek mu jox Uh, mais seen montre yi rafet na ngeen ñaanal mbokk bi mu ne amma layya zawj bu dee layya ndeysaan soxna soxna ayub ngi tuddoon layya bu dee kooku faqad asfaqat alayhi isfaqan ndeysaan dafa yërëm jëkkër ji yërmande boo xam ne ñeewant ci moom ñeewant boo xam ne fokk natt wees na ko shadid foo ko natt wees na ko ndeysaan ci yërëm bu mu yërëm boroom kër gi fa lamma ra'at anna zawjaha ayyub qad taala alayha albala ba mu gisee ndeysaan soxna boroom këram yàgg ci nattu bi ci feebar bi yàgg ci lool dend bis mu ñëw ci moom ba mu gisee boroom këram yàggu na ci nattu bi yàgg na ci feebar bi waaye li mu ci yàgg-yàgg yépp loolu yokk ko lu dul sant yàlla ak yébbulu bis bu nekk bu yaakaaree ne day saalit rek su nit ñi ñee fekk ngëmam yokk muñam yokk cantam yàlla yokk enda usine ci jamono yooyu taqaddamat minhu soxna si ñëw ci moom nag benn bis ne ko dama la soxla ci feebar bi mu ngi tëdd wa qaala la mu ne ko yow sama borom kër yaa ayub innaka rajulun mujabu daawa yow day ah li ma la xame woon mooy boo ñaanee yàlla nangu loolu laa la xame woon yow ayub yaa ngi nii tëdd feebar waaye li ma la xame woon mooy boo ñaanee yàlla yàlla nangu waaw comme boo ñaanee yàlla yàlla nangu ngil la ngalawaay feebar bi yàgg na fadau llaha an yashfika ñaanal yàlla musaafara la ñaanal yàlla nga wér nag fi yàgg na di ndeysaan mbokk yi ñun ñëpp nan ànd déglu tontu Ayub ndaw si ñu xool ndax ñun mën na noo yegg si fii ndax ñun am nañu ngëm gii yow ayub soo ñaanee yàlla nangu nga la ñaanal yàlla saafara la fa qaala ayub daal di koy tontu ne ko kunna fi nicma sabina sana awaay soxna si yàlla dogaloon na man ak yow ñuy doon nekk ci xéewal ak sunu njaboot ak nit ñi nekkoon nañ ci xéewal sabiina sana mooy ñaataat juróom ñaar fukki at man ak yow ñuy xéewlu tee ngaa bàyyi ñu nekk ci nattu bi ci feebar bi juróom ñaar fukki at mu tolloog moom fa daina nakuna fi lbala sabiina sana noos nañ ñeen juróom ñaar fukki at bàyyil ñun yàlla nattuñu juróom-ñaar fukki at allahu akbar mu tolloo xoolal lii allahu akbar waaye da lay woon ne li tolluwaayu yonent yi la moo tax du hasard ñu ne ayuba as-sabir du hasard ñu ñu ñu tàkkantele ko du hasard xoolal kii rek muy su ñaanee yàlla yàlla yëral ko waaye mu ne rus na noos soixante-dix ans yàlla feebar loo ko weer muy ñaan nag wér nag loolu rus la kersa la allahu akbar man ma noos juróom-ñaar fukki at yàlla feebar loo ma at ma taxaw fii di ñaxtu mukk soxna si eh nañ tollale yëf yi juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar fukk ndeysaan mbokk yi ni'mal abd innahu awwaab yàlla subhanahu wa taala bu ñu jàngee alxuraan dañuy fekk mu takkal ay yonent grade yu bare bari ay yonent yu bari yàlla da leen takkal grade bokk na ci grade yi yàlla takkal ayub mooy ni'mal abd jaam bee ka baax innahu awwaab foo ko fekk mu ngi dellu si ci man li yàlla moo ko takkal ni'mal abd président de la république bu xooloon ci parti bi benn waay mu ne lu muy wax ku bokk ci parti bi lu luñ lay woowee déedéet ah camarade wala frère ah cré- frère wala camarade boo bokkee ci camp bi ci camp bi ci soldat yi chef bi ne un bon soldat bu fekkee ci réew mi nga bokk président di wax ak yow ñu ne un bon citoyen bu dee ci élève bi eh, ci école bi nga nekk ngay jàng directeur bi ne un bon élève bu dee ci koñ bi nga nekk ñu ne un bon yaa jaajëfay olof yi ne benn dëkkandoo ndeysaan du modèle la lu loolu ndam la waaye yàlla bu xoolee jaamam ba mu ne jaam bii moo baax kooku baax na wala baax yàlla toll na yàlla xool jaam yi ni ñu bëree bëri mu ne ni'mal abd waaye sama jaam bi moo baax waay ñu ne yàlla lu mu def mu ne innahu awwaab foo ko fekk li koy yitteelam yépp mooy nu mu dellusee ci man sama digganteeg moom nu mu rattaxee loolu rek mooy yitteelam ni'mal abd innahu awwaab mu ne ci feebar bi yépp nag ak natt bi wa ala ragmi hadha al bala shadid ci nattu bi ko yàlla teg muy feebar allazi taarada lahu nabiyullahi ayub feebar bi nga xam ne moo gaar ayub illa anna allaha wajada qalbuhu radiyan wa sabiran loolu lépp ak nattu yi li dem lépp fu ñu fekk ayub xol bi mu ngi nangu li yàlla dogal ci moom xol baa ngi ko nangu foofu rek mooy problème mu nit ñi tey mooy est-ce que nangu nga ndogalal yàlla est-ce que li yàlla teg li la yàlla teg neex na la est-ce que dinga ko muñ loolu rek mooy suñu wax tey lii rek moo tax tey jullit yi am problème ñàkk a nangu ndogal yàlla ñàkk muñ koo gis day ñaxtu foo fekk nit ñi ñu ngi tasaaroo ci mbedd yi di yalwaan kër ga dara nekk dama feebar li ordonnance la lii nangam la lële nang ku nekk a ngi wax ana muñ ah ana nangu li la yàlla teg xoolal ayub nee nañ rus na ñaan yàlla yàlla wéral ko te bu ñaanee yàlla nangu bi ko soxnaam ne ñaanal lu mu ko wax noos nañ juróom-ñaar fukki at bàyyil ñu am nattu juróom-ñaar fukki at kon moo lay wan ne yonent yi dañ daan gudd fan waaye mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala fekk na ayub mu ne keng ci nangu ndigal yàlla waaye mu ne keng ci muñ natt musta mer musta ñaxtu musta découragé lahza wahid benn seconde moo tax sunu borom subhanahu wa taala di ko misal ci benn aaya ci aaya alquraan yi ci suratu Saad aaya bi de ku ko wax ma jox la mont aaya bi ci suratu Saad yàlla di misaal ayub ku ko wax ma jox la montre bi te bii ni mu rafetee laa ilaha illallah xaaral ma wax numéro aaya bi 44 aaya numéro 4 aaya numéro 44 ci suratu Saad yàlla nga fay tagg ayub ku ko mokkal aaya bi ku ko mën ma jox la montre bi xaaral ma tegaat xaaral ma tegaat sama montre xaaral ma tegaat sama montre borom bi nee na a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi rrahmani rrahim inna wajadnahu sabira yéen léegi-léegi maa ngi ko doon wax ni'mal abdu innahu awwaab waxuma ko léegi-léegi ana xaafis yi yàlla ne inna wajadnahu sabiran kan mooy wax damaa bëgg ñëpp bàyyi xel ci aaya bi kan mooy wax yàlla yàlla nee na inna wajadnahu sabiran dama kaa fekk mi ngi muñ maanaam samay yi mbir samay nattu bi ma ko indee ci kawam nan laa ko fekkee sabiran kon waa ji muñ na wala muñu nekkul nit mooy wax ak mooy wax nekkul yàlla borom asamaan moo ne bi ma ko nattoo dama koo fekk mu ne keng ci muñ waaw ah yàllaay wax de loolu la nit ñi war a bàyyi xel yemu fa mu ne neemal abd waaye jaam bi moo baax waaye lu tax innahu awwaab allahu akbar kii rëcc na texe kii texe na ku yàlla tagg texe nga Sénégal tey ku fi Macky Sall taggoon lu gaa yi wax sii ti ti ti kii texe na billahi texe na ñu dégg li ko président wax yéen kii saay suba gars yi dañuy rang sa buntu kër ñu commencé rey nag yi parce que président moo la tagg ah moo génn ci télé journal télévisé en direct mu tagg la ah nga gis gars yi commencé la woo téléphone foo nekk nga naan non maa ngi nii sama kër gars yi ñu ngi ñëw allahu akbar waaw ku yàlla tagg nag lan ngeen di xalaat ci moom looloo gën a tuuti ajjana moo gën a tuuti ci li muy am ajjana moo gën a tuuti yàlla moo tagg ayub ci suratu sad aya 44 waaye war nañu taxaw waqafatun hamma war nañu taxaw ci fee histoire ayub ay taxawaay ñëw na ci ay téere tey yu tasaaroo ci àddina bi ba yegg si fii ci sunu réew Sénégal nit ñi jàng ko balaa ñuy judd ba tey fii nu toog ci ay nit nu ñuy nettalee histoire Ayub feebaram waaye dugal ci ay mbir yu baree bari yu ci bokkul léeg-léeg ngeen dégg yenn conférence yi ñu ne Ayub dafa feebaroon ba ràmm moom mooy benn Ayuba dafa feebaroon ba ngaana ayuba dafa feebaroon ba yaram bi nëb di génne jàngee lool ay sax jàngeen sax ñu ne sax yi dañ ko doon diri ñu ne yaram bi yëpp yàqu ba xol bi rek des déggu leen lool li leen di wan ne loolu dara du ci dëgg dañoo waroon wax feebar na rek parce que la yàlla feebar la wax moo ko nattu li lay wan ne yooyu du dëgg mooy ayuba yonent la yonent lan mooy mission mooy woote yàlla lay woo nit ñi su fekkee am na lu ko dal ba nit ñi di ko daw ndax wooteem dina réussir waaw mooy lu dëgg di ayuba yonent la yàlla moo ko yónnee ko wool ma nit ñi mu ràmm waga ba nit ñi di ko daw ku muy wooti mu feebar ba sax yi di ko diri ku muy woo ah dégg nit ñi nit ñi dañoo yor nature bi boo amee feebar buy wàlle même bu dee say doom sax benn fenêtre lan lay ubbil bu ñu xëyee papa añ nga yaa ngi tane waaw daan lay romb waaw kenn du la nangu jege donte ne say wala sax yenn saa yi sax nga gis jabar ji ne dem yoonam bu dee jabar ju gëmul yàlla lool mu dem bu dee jabar ju gëm yàlla lool mu toog waaw ndeysaan gis ngeen kon loolu du dëgg ay israéliyaan la lu tax mooy yàlla du yónni yonentam yonent bi ñëw war a wax ak nit ñi yàlla teg ko feebar buy wàllaate ku mu dal mu dee kan mooy wu kan mooy wuyu jikooku kon mission bi day yàqu di dañoo war a wax rek ne ñu yem fi yàlla yem loo nit ñi mooy lan feebar na nit feebar na mais feebar bi du wàlle feebar ba sonn ba nekk diggante dund ak dee ku ko nuyu si du xam kan la te mu yàgg lool ndeysaan tey jii fii ma toog di maa ngi jóge ci ay armeel ci am pax laa génne doon suul sama benn papa moom ki mu bokkaloon saal te daan wax góor gi loo bëgg tey góor gi ne ko nangam mu ne togg leen lool góor gi sonn lool toggal leen ko lool looy naan mu ne ko nangam mu ne dem leen jëndi loolu tey jii mu ngi ko commandé loon lan cere baas moom mu tane ba ñu changé ko saal mu war a génn ca saal ba ñu ko yóbbu foofu la dee dem ci guddi mu bàyyi góor gu sonn ko ca saalam mu toog ñu ne góor gi dañ koy nëbb ne góor gi dee na wax bëgg ñu ko wax ne dafa sonn xoolal kee tane de ki sonn tëdd toog sunu borom loolu lañ naan loolu la kis ki naan fa kam min maridin utna wa ma utna fa kam min quburin tubna wa ma tubna fa kam min malikin rufiat lahu alamat fa lamma alamat gis nga baat yi nag buñ ko bëggee firi ci olof dootul neexati lu tax ndax baat yi dañoo ànd fa kam min quburin tubna wa ma tubna gis ngeen nu mu àndee xam ngeen loolu muy tekki mooy ñaata bàmmeel lañu tabax te tuubuñu boo demee ci bàmmeel yi ñu ngi tabax rek te kenn du tuub fa kam min maridin utna wa ma utna gis nga nu mu àndee ñaata yoon lañ dem seeti ku feebar te yow mi seeti woon ku feebar ki delluwaatoo seeti ko benn yoon nga dem delloo ñaarul ndax dafa faatu mu ne ñaata yoon nga gis buur walla nit ñu koy yëkkati di ko takkal garaat di ko yëkkati di ko yëkkati bañ ko yëkkatee ba mu kawe yàlla wàcce ko te bi ko yàlla wàccee kenn dootu ko yëgalaat dañuy jël naan général di takk walla ñu ne député sénateur premier ministre président après président yàlla nee na ma wàcce ko gas bax ba mu xóot ñu dugal ko kenn dootu ko yëgalaat xool fu ko yàlla jëlee nu mu kawee moo commandant yàlla mu ne ma wàcce ko boobu ci suuf ba lépp gën ko kawee kenn dootu ko yëgalaat bal sax kenn dootul wax turam kon yooyu ay mbir la yoo xam ne doomu ndey yi ñu bàyyi xel ne yooyu ay israéliyaat la wérul ci histoire ayub alayhi salaam mu ne yooyu yëpp aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu nee na yooyu yëpp ay léeb la rek yoo xam ne israiliyaat la gaa yi ñoo koy wax waaye yàlla subhanahu wa taala du yónni ab yonent yonent bi mission ñëw nekk defar nit ñi am lu dox digganteem ak nit ñi te moom nit ñi la soxla yonent ak wootekat ñoo yem ñoom nit ñi lañ soxla moo tax lépp lu yàq seen digganteeg nit ñi ñoom waruñu koo nangu képp ku bëgg a yàq seen digganteeg nit ñi ñoom waruñu koo nangu moo tax ñoom dañoo war a nekk ñu muñ dañoo war a nekk ñu yaatu lan nga dégg alxuraan yàlla naan muhammad walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lan faddu lan faddu min hawlik soo ñàngoon xat bon xol soxor kon gars yi duñ la wër ah gis ngeen kon yonent yonent yàlla ayub yu bari yu ñuy wax ci feebaram bi amul ndax lan lu tax amul mooy mission moo doon yàllaa ko yónni ci nit ñi pour mu woon nit ñi ñu ñëw wuy si ko jëm ci yàlla feebar na nag dëgg la yàlla natt na ko mais yeggul fu ay sax di ko diree yeggul foofu yeggul aussi fu sax yi di lekkee yaram bi ba mu des xol bi kese loolu tamit egg ak làmmiñ bi loolu tamit eggul foofu loolu Israël yàlla jullit waru ko gëm ixwaan yi yonent yépp nag comme nit ñi rek bu nee nit yonent la diw yonent la tekkiwul ne du feebar de xam nga Sénégal bokk na ci li gaare nit ñi mooy ñu defa ne kuy waxal yàlla walla ngay liggéeyal yàlla yow waroo xiif ah yow déedéet ah xanaa du yow waayu yàlla nga waayu yàlla nag la yàlla di nattu saa yoo nee man maa ngi jëm ci yàlla nattu yi ñëw nañu ku may indil aaya bi aaya boobu da jar naa teg montre bismillah mu nga jox ko alif lam mim ahasiba nnas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ndax da ngeen yàlla ne da ngeen yaakaar dama leen da ngeen ne ne gëm ngeen rek ma bàyyi leen ah déedéet foog ma testé leen wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna allahu alkaadi yàlla nee ne damaa testé woon gaa yi démb ba ma xam ñi dëggu ma xam ñi de ñi waxul dëgg kon ab yonent alayhi salaam wala benn waayu yàlla tekkiwul ne moom yonent la du feebar tekkiwul loolu tekkiwul ne moom yonent la këram warul ñàkk dépasse déedéet tekkiwul ne moom nitu yàlla la bañam warul métti déedéet tekkiwul loolu de au contraire sax ñoom ñoo gën a tar ci ay natt ñoom yonent yooyu ñoo gën a tar ñu jël li mujj ci sunu darsu tey mooy al zawjatul wafiya ndeysaan nit bokk na ci li tax mission di réussir góoru yàlla wala nitu yàlla wala yonent yàlla mooy nga am soxna su baax gis ngeen soxna tey ñu ngi koy fowee waaye lu jar a tànn la yenn saa yi nga dégg tubaab yi ne compagnon de lan de ma vie kii lay àndal ci sama dund du loolu la ñuy wax koy àndal ci sa dund nag war nga ko tànn tey jii ñun ñi mun duggoon ci benn salon bu ñuy jaayee ay portable ñuy jënd portable dañuy ñëw rek ne ko jaay ma lu ñuy def dañuy tànn bu ñu demoon ci benn salle bu ñuy jaayee ay montre bu ñu ñëwee dañuy ñëw rek jël ah dañuy tànn bu ñu gisoon ay kër yu jaay dañuy ñëw rek ne ko jox ma bi dañuy def dañuy tànn bu ñu demoon ci benn hypermarché di jënd daal bu ñu demee nu ñuy def dañuy tànn. bu doon jënd yére kaala yi sax bu ñu ko doon jënd nu ñuy def dañuy tànn lépp da ngay tànn tey ba mu des jabar dégg leen li ma wax de ma ne fii nu toll tey nit ñi lépp la ñuy tànn ba mu des jabar te nee nañ jabar mooy koy àndal ci sa dund bu sa dund jeex mu suul la mbaa nga suul ko mu nar a jur say doom kenn du ko tànn te yonent bi dafa ne woon tànn leen tànn leen la waxoon léegi loolu kenn du ko tànn te bokk na ci li tax nit di réussir dundam mooy mu am jabar ju baax xam ngeen ayub lu ko yàlla dimbale mooy mu am azawja alwafiya soxna su baax soxna su mat laqad taalal marad feebar bi yàgg na ala sayidina ayub xataa rafadahu alqarib walbaid ba ñépp daw gis ngeen feebar bu yàggee ci nit nit mun na feebar trois jours seeti la day yomb yow yëg nga oustaz dafa feebar ah anamu mu ngi hôpital nga dem ginnaaw suba nga delluwaat waaye bu yàggee kenn dootul dem première bi dañ lay seet si ba saal bi di fees une semaine mu wàññeeku deux semaines trois semaines quatre semaines un mois bii nit rek mooy ñëw ndax lan dafa yàgg dafa sori te nit ñi amuñu jot ya ayub bi feebar bi yàggee sori metti ñëpp daw alqarib wal baid ñi jege ñi sori ñëpp a ko daw suñ ne alqarib luñ ci bëgg a wax non bàyyi leen ma laaj ko kii bu gañe am montre buñ ne alqarib luñ ci bëgg a wax sama montre yi caaxaan du ko yóbbu de xam nga ko buñ ne alqarib lan lañ ci bëgg a wax jege ñaale yi albaid luñ ci bëgg a wax nit ñi ñëpp daw ko ndeysaan ñëpp daw feebar bu yàggee dañ koy bàyyeeg boroom kenn dootu nangu ñëw bu yàggee sax nga dégg ne nit ñi ah man de soo gisee dematuma dama dégg feebar bi day tey wàlle moo tax dematuma de man de loolu laa dégg waaw gis nga loolu lañ commencé ñii daw dañuy commencé di am nga di di ut di di ut lu ñu lay di lay seeteetuñ la rek mënoon lañ la wax la seeteetuñ la waaye duñ ci yem dañuy fexe sax ba bu kenn demati ndax ñoom seen buntu seen absence du ñoom rek ñu xam ne léegi ñëpp la ñoo bañ a ñëw ndeysaan mu ne wan sarafa anhu naas ñëpp dem xoolal koo xam ne sa kër bu ñu xëyoon suba taal cin li cin li du fay ndox mi ñu ngi koy yokk matt yi ñu ngi koy xam nga heure boo ñëwee lekk nga mujj kenn nekkatul ca kër ga nga mujj kenn seet seetu la ñépp bàyyi ko walam yabqa maahu illa zawja desatul ak moom illa zawjatahu lu dul soxnaam kese kese alwafiyatu soxna si mat soxna si matal sàmm kóllëre assaabira soxna su muñ noonu la soxna di meñ mel soxna moo tax ñu ne soxna gars yi nee nañ soxna ak jabar du benn luy différence soxna ak jabar waaw Issa bëgg nga ci montre de bismillah luy différence soxna ak jabar soxna day nangoo sonn jabar nag ah soxna ndeysaan gis nga moo tax saa yoo gisee jigéen ju baax ci kër rek da ngay dégg nit ñi ne soxna ñi baax yépp soxna lañ leen di woowee walla jigéen ñi baax ci kër yépp soxna soxna lañ leen di woowee soxna waaye jigéen ñëpp nag ñoo yem jabar jabar jabar la rek jabar mooy koo takk rek indi waaye nag mu des nag mu war a nekk soxna mooy booy xëy na nijaay yaa ngi xëy nga ne ko waaw mu ne la góorgóorlu ba mu fa indi lu araam ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara dafa indi lu araam de nga ñëw mu ne waa nijaay yow ana sa xarit boobu diw ah kooku mu ne la déet déet nit ku baax du def noonu nga ñëw noonu rek chaque jour mu ngi lay conseiller lu baax loolu mooy soxna saa yoo bëggee dugg ci fitna mu génne la ci saa yoo bëggee bàyyi def lu baax mu soññu la ci loolu mooy soxna rawatina nag mu gëm yàlla di la soññ ci jaamu yàlla boo tayalee sax mu ne la mbaa julli nga gee julli nga gee nga naan ah mun a déet déet xaaral ma tàngal la ndox nga jóg julli ndeysaan waaw léeg-léeg mu ne la ah tey la dimanche de suba la lundi xaaral ma dencal la pooju ginaar bi nga boo yeewoo nga xëdde ko ndax nga woor lundi suba anama dencal la mburu pain au lait bi ndax nga mën a woor tey la àllarba suba la jeudi nga mën a woor suba léeg-léeg mu ne la nijaay gëñ ngaa naafila guddi de seetlu naa la weer a ngi nii naafila woo guddi ndeysaan yal nañu yàlla may soxna yu mel noonu loolu de bu amee ci kër rek kër ga am jàmm loolu bu amee ci kër doom yi judd ci kër googu dañuy nekk ay doom yu baax ay doomu jàmm waaye soxna boo xamante ne buñ ne asalaatu xayru min an nawmi nga bëgg a jëm ni jaay ko jëm nga xëccaan mbàjj mi dëdd soxna su mel noonu bisa ngi ñëw mu yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkka jam nan la yàlla musal ci loolu borom téere bi nee na ñëpp a daw ba mu des soxna si allahu akbar ñëpp soxna si matt lépp taxaw ci wetam soxna si di ko sàmm di oyofal mettit bi ci moom di ko toppatoo jox ko mu lekk jox ko mu naan soxna si bàyyi lépp lu mu doon def occupé jëkkëram lépp la bàyyi taxaw ci wetu borom këram ndeysaan wa kaana ayub alayhi salaam yazdaadu alaman waaye terewul ayub métit baa ngi gën a yokk wa huwa yara te soxna siy gis ndeysaan dafa am benn jigéen bu ñëw ci man barkaati démb ne ma sama sama baayu borom kër daa feebar feebar bu yàgga yàgga yàgga yàgga yàgga maa koy wëlbati maa koy sang maa koy defal lépp waay waay ñaanalal ma ko mu noppalu ko déet waay Sénégal mooy dëkk boo xam ne su nit feebaree soo soo yàggee ci feebar yi da ngay gis ñu ñu ñu dem jëli ay nit ñu ne jàngaleen ko yaasin waay saa yoo déggee jàngaleen ko yaasin mooy pour na dee ba ñu noppalu ñoom sonn nañu ndax ma leen de saa yoo déggee ku feebar ci kër nit ñi di dugg di génn ba ci yàgg ñuy ñu ne ay nit kaay leen jàng yaasin mooy dañoo bëgg a waa ji dee ndeysaan ndeysaan boroom xam-xam bi nee na alxuraan yàlla daf ko wàcce woon pour nit ñi dund tey nit ñi di ko jàng pour ku dee alxuraan du pour nit dee pour nit dund la li tunzira man kaana hayyan wala loolu waaye ci surtout yaasin yàlla mu ne nañu waar nit ñi balaa ñuy dee léegi nag ñun dañ koy jàng pour nit dee demee benn malaat bu yàgg sonn lool ñu ne iqra'u lahu yaasin jàngaleen ko yaasin ngir mu dee loolu la ma soxna si wax jàng ñaanalal ma ko yaasin ndeysaan ma ne ko yal na la yàlla yërëm mu ne ah loolu nga may wax yal na la yàlla yërëm alxuraan du pour nit dee alxuraan pour nit dund la mbokk yi ndaw saa ngi taxaw ci wetu borom këram waaye mi ngi gis feebar bi mi ngi yokk waaye loolu lépp ndaw si découragé wul gis na waa ji soppeeku na ci jóge na ci am jëm ci ñàkk jóge na ci xéewal nekk ci toroxtaange jóge na ci lu yaatu nekk ci lu xat jóge na ci ñu ko doon liggéeyal di ko eskay tey gisatul kenn affaire bi yàgg wa taala sanawaat affaire bi yàgg lool ay ati at wax naa leen sànq nee na jabaram man ak yow ñun noos nañu ñaata at juróom-ñaar fukki at ñuy noos kon bàyyil ñu nag nekk ci nattu juróom-ñaar fukki at moo tax feebar bi yàgg lool di continuer chaque jour waaye moom wa yashkuruhu wa yasbiru ala qadaihi ma ngay muñ ma ngay nangu ndogalal yàlla subhanahu wa taala ci yàlla lim ko dogal lim dogal ci moom wa kaana annaas yaatufuuna ala zawja yenn saa yi sax nit ñi ñëw ne soxna si waayow yow noo mën a nekkee kii xam nga yenn saa yi loolu am ci réew mi da ngay gis ku toog di gérer njabootam jëkkëram feebar wala jëkkëram ñàkk wala jëkkëram tukki ay nit ñëw naa la waayow kon yow nii rek nii nga fi nar a toogee di ko xaar ba mu ñëwaat wala nii nga nar a toogee di ko xaar ba mu ba mu wér wala man sax yaakaar naa ne kii dana la wàll ñu bëri loolu la ñuy def di la wax wax yu bon ba nga dem bàyyi sa borom kër wala nga dem bàyyi sa jabar wala nga dem bàyyi sa baay waaw ah yenn yi nag wax dëgg yàlla nag yenn yi nag moom yenn yi nag yàlla tegu ko nit lii ngay def moom yàlla tegu la ko ndax day dee ba pare rey la su ko defee yow boo doon def sans nga commencé di wàññeeku yenn saa yi sax nga koy xiifal ndax mu dee waaw gisoon naa soxna soo xam ne boroom këram ab alkaati la woon ñu boole ko ay bandi na leen yóbbu tribunal bandi yi song ko ci oto bi xëccoog moom li mu yoroon grenade yi affaire bi explosé seen kaw ci biir oto bi oto bi daanu ñii seen loxo yi dagg ñii seen tànk yi dagg ñii seen bët yi tuuru moom lan la ko yàlla nattoo moom waa ji ñaari bët yi ñoo tuuru ñaari loxo yi dagg moom alkaati bi ndeysaan ñu hôpitalisé ko faj ko ba mu tane ñu génne ko indi ko këram xam ngeen lu jabaram def di ko doroge ndax mu nelaw ndax far bi mën a fanaan ci kër gi jabar bi ut far far bi di yenn di fanaan ndaw si doroge waa ci pour bu mu xam nit ak ci kër gi ba ñépp yëg ko ba mbokk yépp yëg ko ñu jël waa ji yóbbu ko dëkk ba ak doom yi waa ji ñëw takk ndaw si ndeysaan gis ngeen Sénégal gis ngeen Sénégal de ah xam nga ne ndaw soosu mënoon naa wax waa ji dinaa jaamu ci yow yàlla ba dee wala ndax waa ji lu mu doon def doon liggéey te ci liggéey boobu la ko takkee ci liggéey boobu la ko suturaale waaye gis nga fii li ëpp ci sunu jigéen ñi boo nekkee ci jàmm rek la ñuy nekk ak yow waaye bu ñu gisatul lu ñu xam ne la man lii man xaw ma ko fekk ma sunu kër waaw maa ngi dem sunu kër dégg nga fii loolu dafa bëri dañ leen yàlla suturaal mbokk yi ndaw si moom continué ci muñam ci jàppale borom këram taxaw ci wetam di lewat ci moom ak lépp lu mu dégg nag ak nit ñi lu ñu wax comme nit ñi dañoo ragal feebar bi ne feebar bi day wàlle wala feebar bi nangam wala ñu yaakaar ne feebar bi ci lay deewaale du wér ñépp dem jabar ji moom toog sax situation bu nekk ndaw si di ko dund ak boroom këram loolu naan mooy weer mooy weer yi mooy sang mooy sang mooy xol mooy lekkal mooy def tout ñépp dem bàyyi koog du këram moom kese ci koo xam dañ ko doon wër démb incha allah mbokk yi fii la ñuy teg sunu baaraam ba àllarba bii di ñëwaat ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def suñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu